mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen ndax ñun si rajo Rewmi FM nekk tey dimanche ji ñuy dalal ñi nga xam ni ñoom ñoo di euh, soxna Khadija Sy nekk activiste relais communautaire ak euh, Khadija Sy ca diwaanu Pikine ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi leen di fay di nuyu mbokk auditeurs yeeg auditrices yi ñuy déglu yëpp. Mhm. maa ngi tudd Khadija ay Sy di mhm. relais communautaire au niveau de Pikine. membre aide ado jeune membre aussi dans la plateforme Girl Out Loud muy mhm. kàddu jigéen ñi bu plan international Sénégal. mu nekk lu am solo feggoo ci beneen Xadijatu wan ca Dakar Plateau Xadijatu ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. asalaamaaleykum euh, wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant mhm. man euh, maa ngi tudd Hadjatou Wane mhm. je viens de Emat waaw pour ñëw représenter comment dirais-je sama commune. donc euh, ñu war a sekk waxtaan wi ni mel ci émission gox bi lépp nag ajoo ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci sensibilisation bi ak euh, suñu partenaire bi nga xam ne nag moom moo di EMAD plan international nga xam ne ñoom lañ àndal ci émission gox bi waaye laata loolu rek da ab tiis moom Mouhamadou Bamba Ndiaye moom mi nga xam ni moom moo génn àdduna ni ki démb rek lañ ko jébbal boromam ci sama kàddu ak ci turu euh, président Mbagnick Diop moom mi ngi njàll famiyam di jàlle itam umma islamique bi yëpp Khadija comme ni ngeen ko waxee coronavirus bi mu ngi fi moom moo gën a tax tey ngeen wàcc ci terrain bi ngir sensibiliser askan wi alors tey lu tax ngeen jël initiative bu ni mel wàcc ngeen ne da ngeen di dem sensibiliser askan wi ci jàngoroy coronavirus bi. waaw comme li nga wax rekk coronavirus bi moo ngi fi te aussi ñun dañoo doon ay ndaw yoo xamante ne dañoo jug ñu ne ñun dimbali suñu askan moo ñu jug te xaaruñu ci dara mhm. kon muy corona ak beneen feebar ak leneen ak leneen lu mënti ñëw dañ ciy taxaw xar ci suñu tànk tubéy ba keroog muy am solution mhm. looloo tax bi pandémie bi ñëwee mu doon loo xamante ne tiis la bu wàccoon ci askan wi ñun nangu ko parce que suñu borom aussi mooy dogal mhm. mais en tant que engagement bi ñu am en tant que jeune xam ne jeune mooy ki nga xamante ne mooy defar réew ëllëg pandémie bi fi am ñi koy nettali ji jeunes yi lay doon ñooy ami ji seeni i doom di leen wax ne ba jamono jii nii am na tiis bu fi wàccoon nii ak nii la tëddee woon mhm. rafet na trop bu ñuy nettali ku ci nekk taxaw daane man ba mu amee bayoon naa ci sama waar mhm. defoon naa ci dara mhm. kon mu doon loo xamante ne tey liggéey ñëpp la liggéey képp la parce que aar askan wi aar sa bopp lay doon wala donc looloo ñu waral ñu am engagement bi jóg ànd ak suñu volonté comme niñ ko amee woon chaque jour taxaw ci pour sensibiliser askan bi ngir aar kon ba mbas mi dooree ngeen jóg ca fajar itam bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a sensibiliser askan wi. waaw ba mu dooree la ñu jóg mais mun naa ne doorul rek ñu jóg. Mhm. parce que au début dañoo waxoon restez chez vous. Mhm. restez bi taxoon ñu toogoon suñu kër. ku ci mel ni tey Khadija dafa ne woon mon smartphone m'envoie mhm. sama téléphone laa daan utiliser di def ay vidéo ay sensibilisation explique les gestes barrières nan la ñu war a mun a raxasoo ba mu set expliquer tey bu nit jugee voyage nan lañ ko war a mun a siiwalee mm-hmm. te du yegg sax loo xam dafay tasaaroo ba nit ki xam ne yaa ngi koy daw wala yaa ngi wan askan wi ñu daw ko mm-hmm. mu doon loo xamante ne publier nañ ko si suñuy plateforme yi ak sama page Facebook mu amoon résultat macha allah. Mm-hmm. mais dañoo gis ne doyul woon parce que ñoo ngi daan génn si suñu gox yi di gis ne xale yu góor yaa ngi def regroupement ba tey xale yaa ngi ci mbedd yi nit ñi respecté wuñu mesure barrières yi comme nañ ko war a respecté donc on apporte nécessaire ñu ne en tant que des acteurs communautaires ñun tey waratuñoo toog parce que it ñu demee bay toog na fekk ñu xamal suñu askan wi tey ñan ñun ñii ñu daan gis ñuy liggéey ci gox bi lan moo ñu téye mhm. ñu jóg jël suñuy disposition mhm. vu que ñun yàlla suturaal nañu ba xam nañu nan la ñuy garder distance bi mhm. respecter mesure barrières yi ban mun nañoo nekk ak nit ñi mais nan la ñuy nekk ak ba nga xamante ne du ñu nekk en contact ak virus bi loolu permettre ñu ñu dugg ci biir terrain bi mhm. jël suñuy disposition que ce soit masque gel lépp lu ñu war a jël ñu jël ko mhm. dem ci biir askan wi mais avec des VAD sécurisés mooy dañuy dugg ci biir kër gi mhm. déjà waxtaan ak waa kër gi que ñu respecter mesures barrières yi ñun tamit ñu respecter distance bi toog waxtaan ak ñoom mhm. xamal leen li fi wàcc mhm. xamal leen bu ñu respecté wul mesure barrière yi fan la leen mun a jural parce que borom kër boo xamante ne kat dépense da ko war leneen ak leneen war ko yaakaar naa boo koy mhm. waxal njëriñam du ci mer mu am solo tegal sa baaraam foofu ñu ñëwaat ñu dem ci xadijatu wan moom itam ba mbas mi dooree itam ngeen jug sol seen dàll ngeen ne da ngeen di dem wax ak askan bi yee leen ci jàngoro coronavirus bi lu mu tere tey liggéey bi ba ngeen ko dooree ana nan la leen dikkee ba ngeen jug wàcce ci terrain bi. Euh, tout d'abord mbir mi doon na lu metti mhm. parce que tamit euh, Covid bi ñu ko gëm bëriwul. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne sax dañuy naan faalew ma ko parce que gëwuma ko. te loolu du yoon. parce mhm. qu'il existe vraiment. Euh, moo tax nit yi dañoo war a jël seen matuwaay comme nu mu ko comme nu ko Khadija waxee. Mhm. Euh, di jël seen ay masque mhm. seen ay gel désinfectant mhm. di ko fagaroo. ndax dugg nañ ci ay gox. di wax mais xam nga nit rek am na ñoo xam ne sooy wax ak ñoom duñ la faale. Euh, en plus distance yi nit yi duñ ko nangu parce que dangay romb benn koñ tey nga gis groupe xale toog fa ñu ngi ataaya mais boo leen waxee salaamaaleykum mais kii bi. jegewantoo bi dañ koy tere. Mhm. mais ils se disent non loolu su sama yoon ils s'en foutent. kon yombul daal wax ak mhm. ñoom yombul. parce mhm. que dañoo dëgër bopp. en plus aussi famille yi. duñu nangu tee seen doom yi. parce que aussi léegi kër yi dafa xat. xale yi dañoo dëgër bopp. mais du du ñu toog seen parents yi duñu leen xool tamit. mais yéen loolu taxul ngeen tàyyi ca euh, Dakar Plateau bi nga dëkk ngeen wàcc. di wax ak askan wi ci euh, sensibilisation bi. non duñu tax a taay parce que tamit di leen xool lu leen di arranger. Mhm. parce que tamit bu duggee tey si gox boobu da ngay xool dina affecté ñu bëri. Mhm. du yem si benn famille. Mhm. parce que mbir bi day dox. soo ko amoon sax nga toog maanaam mën neen am. nu ñuy xoolee ba faj ko ba traité ko. ba ngay war ak jàmm. mais ñoom dañ koy am suñu dewul. tamit ñu ngi dugg si kër yi di ko waale sans pour ñoom ñu xam ko. moo tax mieux nga toog sa kër. respecter luñ ñu wax mhm. pour ñu mën a faj mhm. jàngoro bi mhm. mu nekk lu am solo kon euh, su ma la déggee kon li ñuy bàyyi xel naan dakaar Plateau de moom amul garawul noonu kon euh, yéen yéen a ngi gën a accentuer wu ci sensibilisation ndax des fois di nga dégg benn cas ñaari cas ca Dakar Plateau ndax yéen a ngi jël itam seen matuwaay yéen ñi nga xam ne yéenay dem si askan wi di leen sensibiliser ci Covid bi waaw ñu ngi jël suñu matuwaay parce de euh, dangay xool Sandiniéry rek nu mu mel. Mhm. Sandiniéry dafa bëri ay nit. Mhm. terewul tamit ñu ngi dem di leen sensibiliser. yaa ngi dem mais waaw mais du tere tamit mhm. soo ñëwee. dineen la déglu hmm. mais lendemain boo ñëwee li ngay gis du la neex da ngay wax ba sonn waaye du ñu tàyyi hmm. hmm. parce que suñu tàyyee rek du doon lu ñu gënal mieux vaut ñu dem di wax suñu dëgëree bopp ñu wax tamit ndax loolu mooy doon suñu arrangement ñoom ok ca plateau la foofu ca diwaanu Pikine yi tamit leneen lañ fa nemmeeku Khadija lan ngeen fa gis ndax askan wi ñu ngi jël message bi ni mel di ko euh, bokk ak yéen ci sensibilisation Covid bi bon je dirais que Khadijatou Wane fi mu daanelee. Mhm. mun naa ne dafa laal fépp. boo xoolee avec les jeunes man hmm. déjà damay jël sama quartier ci de caaro yi kaw fi ma nekk hmm. xam naa ñu ngi may déglu xam nañ seen bopp fu ma dem wax leen ko hmm. damay ñëw di leen sensibiliser dañu naan ma Khadija xoolal pan baa ngi nii savon yi gel yi ñu jox yëpp a ngi nii ñu ngi koy utiliser ñoom ñoo may sensibiliser te alors que respecté wuñu distance bi dañuy toogandoo dañuy waxtaan des fois ñu bañ a sol seen masque tout ça tout le temps da ngay obligé di ñëw di leen ko wax di leen ko waxaat te pourtant boo ñëwee lépp loo leen leen ko wax ñoo la koy wax ba pare nga soog see jaaraat ñu def ko après quelque temps ñu arrêté parce que boo waxee ñu ne la yow yaa fiy nekk di sonn bàyyi sa liggéey bàyyi sa yeneen activités yi nga doon def xoolal causerie yi nga daan ñëw dañu ko defal yëpp gëñ nga koo def ñëwal di ko def. ku mhm. fi amut. tu te alors que yow tuuti da ngay yeewu fajar. Mhm. nekk ci activité yi. Mhm. da ngay yeewu fajar yaa ngi dem formation yaa ngi dem réunion lépp rek pour apporter leen dara. Mhm. parfois dañ lay décourager loo. mais boo xoolee aussi ñi nga xamante du tout du tout en tant que acteur communautaire nee la ñun dañuy def xaaruñu dara. ñun dañu naan li ñuy def nii ban expérience lañ ci mën a mais du lan lañ ciy am. bu doon lan lañ ciy am ba tey toog nañu bu yàgg dem seeti leneen. te ay jeunes a dara mun naa ne samay activités yi ñoo ma ci poussé mhm. parce que déjà avec centre ado bi ñu nekk da ngay référé jeune fille du bëgg a dem gis sage-femme parce que mhm. danaa la su ma demee tase faa kenn ku dëkk suñu koñ mhm. day yaakaar ne dama jël grossesse wala dara li nga xamante ne population bi comprendre guñ ko mooy jeune fille mun na dem gis sage-femme avec des infections ak leneen leneen sans pour autant que mu jël grossesse wala dara donc man je me en me disant que ne day mais métier médecine dama koy def. jeune fille yii nii mun naa dem ba su ma leen suivre dama leen di référé ci sama bopp. Mhm. jàppale leen ba ñu wér. Mhm. sans pour autant que ma leen di référé feneen engagement boobu ñoom ñoo lay def après yow ëllëg li ngay doon. donc man je me dis que ne côté boobu ñu ngi ciy fay. Mhm. avec Covid commencé nañ ko yàgg na. amaguñu résultat bi ñu bëgg. Mhm. mais ñoo ngi ci message bi moo des ko message bi ça reste le pourquoi parce que d'une part dañuy dem ba dañ koy jàppee affaire politique. te aussi message bi lu tax mu deñ ji koy sénégalais la. ok mooy lan loo mu bëgg a wax foofu. parfois dañuy bëgg lu mhm. metti loolu noonu laa ko mën a gisee dañuy préféré nga ne leen jëndal ko kaay ma may la mhm. boo leen ne dama lay may ñu ne dafa bëgg a politique suñ ko am na lu muy xaar kii bu subaa dina ñëw laaj ma dara mhm. te alors que boo leen ko jëndaloo mu cher ci la ñuy gën a nekk sax à l'aise xam nga ne kooku neexut a jàppale mhm. parce que tey yow da ngay ñëw jël say disposition da ngay ñëw ak risque mhm. mais nga sensibiliser leen mhm. waxtaan ak ñoom mais lan lañ ciy gis que ni kii dañ koo fay mhm. moo tax mu ñëw fii dañu rey ak wax ñenn ñi gis-gis boobu la ñuy am yéen da ngeen ni politique am na ñoo xamante ne damay ñëw ñu ne ma maire lu mu la bokkal parce que hmm. ñu bari ak expérience boobu la ñuy demee que ni man am na luñ ma jox ci suuf. moo tax je à chaque fois di ñëw di répété di répété wu. bi ma hmm. leen ci wax xaaru ma ci dara au contraire man je me dis que ñoom ñoo moom instant bi sama vie. Hmm. parce que ki nga xamante ne dem nga ba femme enceinte yi bu ñuy am doom quatre heures cinq dañ lay yee. nga jug dugg ñoom ci biir terrain bi yóbbu ak ñu hôpital parce que yaa leen doon suivre pour que ñu mën a respecter seen à domicile kii visite. li ñu war a def mhm. lépp lu ñu war a def da nga leen suivre mhm. tey dañuy dem ba bu ñu gisee dara ci seen grossesse lu leen jaaxal dañuy mhm. ñëw fëgg si la à n'importe quelle heure luñ la ciy fay dara da ngay dem ba dootoo moom sa bopp mais ñoom dañuy jàpp ne sa au contraire yow dafa am lu ñu lay jox moo tax nga bëgg leen a moom alors que tel n'est pas le cas donc c'est pas facile Khadija li mu wax nii kon doy na waar de kon Dakar Plateau kon yéen naka ngeen adapté riposte bi Euh, nan laa si war a wax euh, riposte bi waaw li ñu si war a def mooy lu mu wax rek. Mhm. dëgg la mhm. parce que am na ñoo xam ne tamit dañoo dëggër bopp. Mhm. duñu faale dara. en plus. am na tamit loo xam ne. mënoo mhm. si topp nit ki ba mu ses mhm. parce que nit sooy wax ak moom du faale li nga wax mujj gi da ngay tàyyi. Mhm. parce que da ngay naan à chaque fois du mënuma di wax. nit ki du ma faale. du ma lijjanti su yàggee yow bu fekkee ku koo xam ne yow ku rëy nga. da ngay toog da ngay naan gënuñu ma. wala man tam am naa sama préoccupation lu ma war a def am naa lu ma war a def nga dem toog. comme nu ko Khadija waxee rek ànd naaj ak moom. vraiment kon tey askan wi ban taxawaay la war a am ci mbas mi. Euh, waaw war nañ am taxawaay bu doy ni hmm. jóg ànd ak ñun hmm. xeex li ñuy wax Covid 19. parce que tamit benn nit kese mënul jóg xeex ko. Hmm. il faut nit yi xam ne Covid bi lu existé la vraiment. mais ñoom xam nga lu ñuy def. toog waxtaan ataaya foo kafre. soo leen rombee salaamaaleykum. comment c'est hmm. nga gis nit yi jël seen écouteur takk wala nga gis ne di cibatu waaw mel ni ku la bañ a déglu jël seen écouteur takk hmm. wala ñu ne la pardon hmm. doo dem fee wala aw ma temps mais loolu du yoon au moins ñu war a même bu fekkee du ñu faale lu ñuy wax sax dañoo war a déglu ñu wax ñu déglu ñu xam lu ñuy wax ne am na importance parce que tamit masque bi dañ koy xepp mais tamit mi ngi ñuy protéger gel bi dañ koy xeeb mais tamit mi ngi ñuy protéger quand même mieux vaut kon. Mhm. ñu jàppale ñu si liggéey bi ñuy def waa si matuwaay yi. Mhm. ndax tamit yombul si ñun. Mhm. parce que tamit yeewu bi. dinañ la yee nga jóg dem def sa liggéey. loolu yëpp la fa meet suñu señoon daal ñu ànd ak ñun. est-ce que tey su ma déggee ne Dakar Plateau xam nga dañ ñu bëri dañ naan ah Dakar Plateau de amul problème est-ce que tey kon li mu bëgg a wax mooy jafe-jafe yi fa la gën a ëppee doole. waaw jafe-jafe yi fa la ëppee doole parce que tamit Dakar Plateau soo ko xoolee da ngay naan. Dakar la fa neex. Mhm. plateau la fa neex. fekk am na bërëb yu nekk ci biir waaw. Mhm. plateau soo ko gisee da ngay yaakaar ne ay immeuble kese fa nekk. Mhm. non soo duggee da ngay xam ne ay bidonville ñoo nekk ci biir. am na ay petits quartiers. yu fa nekk juste que immeuble yi ñoo leen di nax. soo gisee immeuble yi nga ne waaw ñii. ils sont en paix amuñu dara amuñu benn sikk sàkk. alors que non. ñun lañ war a jàppale. population bi tamit ak dëkkuwaay yi ak habitants yi fa nekk tamit wax neen lu jàppale bu baax a baax a baax. Mhm. parce que tamit Covid bi. Mhm. lu existé la ma comme que maa ngi koy waxaat maa ngi koy wax ji ko waxaat. parce que waaw mhm. parce que dafa existé. nit yi dañoo war a jàppale. jug ànd ak ñun. xeex ko parce que tamit neexul tamit nga nekk ndaw am ses préoccupations comme ni ko déjà waxee. nga teg ko tege yëpp de côté. ne da ngay ànd ak waa EMAD. dem. Mhm. xeex ak Covid 19. Mhm. sensibiliser nit yi wax leen pré précaution yu war a jël. Mhm. ak tout loolu yëpp la fa metti dinañ ñëw ci EMAD léegi léegi. EMAD moom mu door euh, tey euh, ñëw di sensibiliser askan wi ci jàngoro coronavirus yi mel na ni bàyyiwuñu fenn ñu ngi euh, dugg ci bërëb yu nekk tey ca Pikine la nga xam ni moom moo jëm ci sensibilisation bi ngeen door tey ba EMAD ñëw di leen pousser. ngeen ñu sensibilisation bi mun a gën a mën a yokk ndax yéen da ngeen toogoon di xaar EMAD wala da ngeen euh, commencé liggéey bi EMAD ñoo fekk si leen. non pas du tout comme li ma la wax rek ñun moom suñu engagement dañ koy jël lépp lu mënti am. que lu mu mhm. mënti doon. <laughs> bu taxawee dañuy jóg. voilà donc xëy na EMAD ñëw na. Mhm. mais aussi fekk na déjà man avec les jeunes. Mhm. defoon nañu ay activités ba jëloon suñu rapport yëpp ba déposé au niveau du district. Mhm. vraiment mu doonoon loo xam ne ñoom aussi. apprécier nañ ko ba jot ñoo woo encouragé ñu. Mhm. mais n'empêche que dañuy continuer. Mhm. vraiment ñu ngi doon jéem a def tamit quelque dajale suñuy loo suñu biir. en mhm. tant que des jeunes ku am benn mille francs 2000 loolu aussi ma leen ci jaajëfal. les jeunes ados. di leen wax ne man Khadija si mi leen sonaloon ci indi leen looy kontaan naa trop ci yéen côté boobu. mu mel ni yi woo leen taay yi parce que tey ki nga xamante ne bu lu mun ti taxaw. ñëw leen indi leen ñii ñëw ne ma Khadija man am naa 12 eau de javel maa ngi la koy indil kii ne ma am naa savon bi maa ngi la koy indil. ñu dajale lépp dugg ci biir population bi may leen ko keneen ko am leneen ak leneen ñëw indi te koo ci laaj dafay sawar pour indi ko ñu dajale ko joxe bi ñu waxee dañuy defar masque ñoom ñëpp dañoo cotiser seen biir ñu dem defarlu suñu ay masque distribuer ko ci askan wi kon tey ñooñu noonu engagement boobu c'est à saluer ma leen ciy jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne aw ma seen fay vraiment donc mu doonoon loo xamante ne tooguñu mhm. EMAD dafa ñëw je peux dafa ñëw ak doole te mhm. dafa ñëw ci côté bu ñu ko soxla woon mhm. parce que EMAD dafa ñëw boole ñaari mbir voilà dafa ñëw mhm. indiwul ko fi kese mhm. li ma gën a intéressé mooy dafa ñëw déjà touché couche yi nga xamante ne ñoo gën a vulnérable mhm. mooy les enfants ak jeunes filles parce que tey ñooñu boo xoolee c'est c'est question que aujourd'hui est-ce pas dire que les les jeunes filles sont les plus exposées aujourd'hui ci euh, Covid bi sont les plus exposées te dafa doonoon dañoo doonoon ñoo xamante ne tey déjà même partenaire bu ñëwoon da nga doon ñëw ñuy appuyer commencé woon des activités surtout sur côté SRAG bi. Hmm. di xool nañ lañ leen mën a appuyer si dialogue sexuel yeeg yooyu yëpp. Hmm. Hmm. yooyu c' était des causeries yu ñu daan def. ak dem au niveau des écoles waxtaan ak nit ñi mais ak Covid bi dafa arrêté woon loolu. mais Emma dafa ñëw boolewaat ñaari. donc côté boobu c' est à saluer. mu ñëw xam ne ne bu ñu toppee Covid Covid Covid. Covid bu fi jugee kàmb gu rëy dina fi nekk. parce que bu ñu xam ne dafa am lu tege woon. ñu war cee nekk tey Covid ñëw nag yaa ngi gis mariage yaa ngi ñëw mhm. xale yaa ngi am infection mhm. parce que lan moo indi loolu nit ñi dañoo demoon ba dañoo ragale dem hôpital violence domestique yi ñoo ngi doon gën a yokk mhm. viole yaa ngi continuer di am mais dafa ñëw mu jël loolu lépp dugal ko ci biir ay activité dafa ñëw tey ngemb ay jeune am surtout gën a basé wu ci jeunes yi que ñoom ñu dugg ci terrain bi parce que tey dafa ñëw impliqué jeunes yi dugal leen ci ay biiri activité am mhm. tey ñooñu tey jeunes yi ñoom ñooy ñi nga xamante violence yu bari ñoom lay dal mhm. infection yi ñi nga xamante amuñu woon les bonnes informations et tout parce que au niveau des centres ados mhm. tey bu ci mel ni ñun que tamit amuñu woon ku ñu appuyer ci ay bi ñu war a mun a am carrément pour respecter bi amuñu ko woon donc tey mu doonoon pour ñu joxe woon information yi comme ni ñu daan nekkee chaque jour au niveau de l'espace dafa doonoon loo xamante amuñu ko woon tey ñoom bi ñu ñëwee permettre nañ ñu avec leurs activités bu ñu ko démarrer. Mhm. dina doon loo xamante ne message yooyu nga doon joxe au niveau de l' espace di ko mën a jàllale waale ci askan wi. Mhm. mu doon loo xamante dina leen arranger donc ñaari côté yooyu moom jaajëfal nañ leen ci. ok léegi damay ubbi ligne bi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88. 628 86 86 mun ngeen dugg itam yéen itam ngeen indi seen xalaat ci li nga xam ne moom moo jëm ci contribution gis ngeen ko tey ndaw yi lañ dem jëli ñu wax ñu ñoom itam seen xeex euh, seen implication ci xeexu coronavirus bi mel ni EMAD daf leen ñëw dooleel ca Dakar Plateau ménage yi ñu ci bari tey ñu leen di sensibiliser ci ci ci li ni mel kon EMAD ñëw na yokk leen doole. waaw loolu li ma mën a wax mooy. franchement EMAD yokk nañu doole. Hmm. parce que tamit mi ngi recruité xale yu bëri xale yoo xam ne dañuy toog seen kër duñu def dara. Hmm. wala ñu taxawaalu ci mbedd bi recruter na leen. Hmm. pour ñëw jàngal leen nu ñuy sensibiliser nit yi parce que loolu tamit daf ci bokk. au ngay dem ci mbedd yi di foo walla ngay taxawaalu. mën nga leen ñoom dañoo jël. recruter ñu. pour ñu dugg ci. Euh, si biir gox bi mhm. sensibiliser nit yi mhm. emat tey mën naa wax ni tamit jàppale na si tamit ñu bëri mhm. parce que tamit ñu ngi joxe ay masque ñu ngi joxe ay gel et cetera comme boog jàppale na mi ngi jàppale population bi bu baax parce que tamit ñi ngi waxtaan ñi ngi dugg ji waxtaan soo gisee tey ñu ñu yegg si fii emat moo tax parce que moom ñoo ñuy wax lu ñuy ñoom ñoo ñuy jàngal ñoo ñuy wax ak lu ñu war a jëfee. Mhm. comme boog ñu ngi def ñu ngi jaajëfal waa. Mhm. emat bu baax a baax a baax. mu mel ni kon bu ngeen di dem di sensibiliser porte à porte ngeen di def kër gu nekk ngeen di dugg wax ak ñoom. waaw kër gu nekk la ñuy dugg wax ak ñoom amul dugg kër tëb kër non non dañuy dugg si kër gu nekk xam nga tamit tëb nga dugg si benn kër mhm. doo leen fekk en bonne humeur mhm. di nga nuyu nit ki du la faale wala nga dugg meel bi xool la xelu la waaw xam ne ni ñuy wax ak moom parce que nit dafa war a dal waroo dugg gis nit ki ñàngal rek nga ne moo nañ dem kii moom la fa naqari deret non da ngay duggoo salaamaaleykum nga commencé waxtaan apaiser douleur am. Mhm. ak nu parce que tamit chaque jour nit ki mënul nekk bësam. Mhm. moo tax da nga war a dugg wàccee sa bopp. Mhm. wax ak ñoom en douceur. ñoom tam dinañ dem ba wàcc toog wax ak yow. comme si ko tamit nu muy amee kër yu am ambiance. Mhm. dangay dugg rek ñu ne leen yegg si leen ak jàmm wala dal leen ak jàmm. Mhm. ñooñu tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. Mhm. parce que tamit ñuy jàppale si lu ñuy def. parce que bokkuñu tamit yoo xam ne da ngay dugg seen kër ñu ne la génnal dañoo jàpp. wala ñu ne leen taxaw foofu wala ñu ne leen yéen yéenay kan. la may nga yeggali sax ñu ne ñu bàyyi ñu ngeen dem ba beneen. xam nga tamit loolu tamit neexul. ñu ngi leen di déglu itam bu duggee joxe message ñoom ñu ngi leen di déglu. waaw ñu ngi déglu bu baax a baax ñu ngi ñuy déglu ñoom tamit ñu ngi ñuy jox ay conseils. parce que conseils yi yemul si ñun kase de ñoom suñu duggee tamit dinañ fa fekk ay mag. Mhm. mag yi tamit dinañu teg. Mhm. jox ñu ay conseils wax ñu nu ñu war a doxalee tamit. Mhm. loolu tamit lu baax la tamit su ñun parce que ñu ngi ñuy jox ay idées tamit. est que ni mu mel ca Dakar Plateau noonu itam la mel ca diwaanu Pikine sensibilisation bi ndax askan wi ñu ngi euh, jot message bi ni mel. bon noonu la fa mel noonu la fa mel mooy li muy wax rek liggéeyu acteur communautaire c'est pas facile du tout mm-hmm. di nga dugg di waxtaan ak nit ñenn ñi dañ lay jàndi mm-hmm. parfois sax nga daje see ku la saaga mm-hmm. duñu comprendre duñu comprendre voilà mais à chaque fois yow yaay ñëwee parce que man nee naa leen change la li ñuy liggéey nii parce que daf lay préparer déjà yow ci sa àdduna man nee naa leen man Khadija nit bu ma tiimoon di ma saaga fii ba suba je m'en fous amul problème engagement ba que dama ne man tey nit kii may di moom ëllëg mun naa kaa soxla mhm. ëllëg mun na nekk ci tawat boo xamante ne peut-être day wàlle wala dara ma war a dem envers moom mhm. donc je préfère man ak ku mu mënti doon ci àdduna lépp la ma mënti wax ma muñ ko benn deux minutes trois minutes mhm. après loolu noonu jàll ma fàtte ko ma rombaale nuyu la ñu nekk si jàmm parce que gis naa ne loolu mooy jàmm te loolu moo ñuy may jàmm donc c'est pas facile du tout loolu moo fa am da dugg di wax ak nit uh-huh. du leen aral euh, di leen faral di dal ngeen joxe mas am ñoo xam ne tey euh, sol masque bi sax dafay doon problème. ci ñoom <laughs> daf may fat <laughs> daf may fat lañ la ñuy wax daf may fatt lañ lay wax ñeen naan la ak masque bi mënu ma cee nooyi. Mhm. damaa feebar damaa lii dama amee suñ te imagine yow nga ne da am déjà benn feebaru respiration. Mhm. nga war a acquérir beneen feebar. feebar boo xam ne nañ tey bu ñëwee yow mi am problème respiration daf lay gën a sonal. Mhm. tey kooku yow yaa war a gën a mun a protéger wu. avec les masques chirurgicaux kenn du ne mënu koo takk. gis nga affaire lenn li ci yow yaay def ci sa xel ne man lii moo may faj mhm. donc dalay faj am na koo xamante ne moom gis nga heure bu jëlee paracétamol bu amoon ay douleur au ventre sax dafay sedd mhm. parce que jàpp na ci xelam ne man paracétamol rek moom may faj mhm. donc paracétamol rek lay jël donc affaire yi c'est psychologique boo jàppee ne man masque bi dafa may fat daf lay faj mais boo jàppee ne relâchement dafa am dafa am dafa am bu baax a baax a baax parce que la fait que certains gëmatuñu ok gëmatuñu dem nañu ba def ko affaire de politique mhm. jàpp nañ ne lii nii affaire état la mhm. ndax lan peut-être la communication au début man je ma jàpp ne dafa dese woon baax communication communication bi ñu communiquer Covid bi mhm. dafa dese woon baax nan lañ ci waroon communiquer parce que communication bi ñu ko defee dès les premiers cas dañ leen a exposé voilà dafa doonoon loo xamante ne tey boo xoolee ci réseaux sociaux yi ñim njëkk a dal vidéo yaa ngi circuler kër gi déjà ñun soriwuñu woon noonu mais heure boo rombee da ngay gis ne kër gii nii moo amoon amoon kaaw Covid bi. Mhm. ñu tëj ko jël wane ko journal télé wane ko fépp. voilà donc dafa taxoon tey mhm. man dama daan sensibiliser nit. ñu jël mbokk moom ci liñ bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo. allo sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. salaamaaleykum wa rahmatulah. tur bi. maa ngi tudd Cheikh Omar Gueye. bisimilah. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw waaw maa ngi tudd Cheikh Omar Gueye dëkk Dakar Plateau. Mhm. alors tey lan nga ñu mën a wax tey ci Covid bi ci diwaanu Dakar Plateau. waaw waaw waaw euh, yow man de bu baax. ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax. voilà voilà man de dama bëggoon participer ci émission bi encore. ñu ngi lay déglu bisimilah. Mhm. déjà pour euh, remercier leen mais aussi encourager suñu jeunes filles yooyu toog. Mhm. ndax euh, c'est pas du tout évident. nga nekk jeune fille. waroon def comme say morom. Mhm. nekk dëkk bi di dem rek la say mbir. Mhm. nga bàyyi activité yooyu. Mhm. di wër di sensibiliser di waxtaan ak say morom ak say mag ak say pap nit ñi moytu feebar. ça c'est important. donc moo tax vraiment man damay ni gërëm bu baax di leen encouragé ndax yombul. yombul dans la mesure euh, nit ñi. du ñu réceptif un peu si souvent yenn messages yi nga xam ne yu mel dañ koy joxe. donc ñoom dañuy dugg si koñ yi. di dem di dëkk di si daj lu ne nag. Mhm. lu ne lañ ci ko si daj. Mhm. des fois ñu jànni leen des fois ñu yóbbu leen des fois ñu taaga leen mais ñu ngi tenir si affaire mhm. te yaakaar naa soo amee ay ndaw. yoo xamante ni dañuy def sacrifice boobu. mënoon def comme seen borom yi defuñu ko dafay yoon nga woote encouragé leen gërëm leen. di leen posé nag question. koy commencé si euh, Khadija si. di ko wax ne tam dégg naa si ñuy def ay yu bëri si mbirum xale yi jigéen ñi les droits des bëgg naa aussi wax ñu si tuuti. ndax mhm. dafa am un peu corrélation ak li nga xam ne tey jii ñuy mhm. koy laaj. plateau boobu mu nekk. Mhm. ay mboromu jeune fille. ay mboromu ndaw mi nga xam ne ñoo fa nekk. lan la leen wax pour que ñu conscient ne feebar bi am na. pour que ñu conscient ne ndaw. rek da nga war topp si ginnaaw gi. wala ngay tëb di dal. di baale gàtt fay fay war am jëriñ si réew ñaari question yi vraiment ñun ñoo ku nekk bëgg naa ok am na solo euh, sant ko gërëm ko jërëjëf am na solo donc ci Khadija Wane la ñuy tàmbalee dénk dégg nga interpellation bi nga xam ni def na ko tey naka ngay sensibiliser sa moroomu euh, jeune fii yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca diwaanu Dakar Plateau ci coronavirus bi. waaw mm, maa ngi leen di wax ni euh, pour ñu jël seen matuwaay parce que Covid franchement Covid moom doy la doy waar. buñ de est-ce que tey bu buñ demee ba am téeméer nit ñi nga xam ni génn nañ àdduna ci coronavirus bi ba ba tey jeune fii yi jàpp ni mbir mi mi ngi fi. Euh, waaw tiital na ma nag parce que téeméeri nit génn àdduna si benn feebar. <laughs> loolu xam nga ne neexul a dégg. <laughs> te am na ñoo xam ne tamit dañuy naan du dëgg comme ni ko déjà waxee rek dañuy naan politique la walla état moo nekk si ginnaaw. <laughs> alors que du loolu. maire bi moo existé. Mhm. foog ñu teg ci seen bët. Mhm. xam ne Khadija kat. la mhm. am corona. Covid bee ko jàpp. ñu soog a gëm ne am na. mais tant gisuñu ko seen bët dañuy naan non Covid existé wul loolu ay wax la rek. non alors que du loolu. man daal li ma leen mën a wax mooy. Mhm. nañ jël seen matuwaay. yaa leen koy wax yow. waaw mhm. nañ jël seen matuwaay. Mhm. nañ respecter distance yi comme ni ñu ko waxee. nañ ah, nañ éviter embrassade yi. nuyoo sama genre bi da ngeen bëgg akalaat yéen sama genre bi la xam ne dama lay romb tubaab bu dof lañ may wax fu ma romb damay fóonaate. man tamit bàyyi nga ko bàyyi naa ko. su ma demee ba bàyyi loolu mhm. comme tamit sama moroom yëpp war nañ ko bàyyi mhm. en plus tamit maa ngi wax sama mokk jigéen ñi mhm. surtout sama morom yi ma nekkal Dakar Plateau neen jël seen matuwaay respecter distance yi parce que gis naa temps yi temps yi surtout suñu waa koñ ñu ngi jël dem plage ah plage waaw ñu ngi jël dem plage est-ce que a ngi wàcc foofu waaw ñu ngi wàcc parce que man démb rek laa fa jógee. Mhm. bi ma taxawee gis naa fa nit yu bëri. ah te tamit xam nga regroupement bi di dañ koy tere. mais terewul ñoom tamit. arrêté wuñu ko ñu ngi fay dem ñu ngi sangu pour ñoom. Mhm. suñu suñu taxaw suñu toogee di sangu affaire bi mënuñu leen fay bañ a fekk alors ko du loolu. Mhm. Covid bi day circuler il est dans l'air. day day dem fu nekk. mën naa la romb tey nuyu la taxaw wax ak yow ma wàll la ko mm-hmm. comme ni ngay demee dem taxaw ak nit yi keneen wàllu ko ko mm-hmm. affaire bi dafa gaaw wàllaate bi dafa gaaw mm-hmm. mieux vaut comme que dañuy naan masque bi daf may fatt comme ni ko déjà waxee mais nga toog sa kër boo bañee takk masque génn nga toog sa kër mooy bi gën moo gën ngay génn doo takk masque suñ la jàppee nga fay loolu yàq la mieux kon ñu toog rester chez vous bu ñu wax neen ko appliquer kon euh, ñu ngi xaar Khadija mu wàcc ci plage yi dem di sensibiliser askan bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca doonu Dakar Plateau ci Covid bi. ah man kat damay bañ ñu dóor ma parce que nit yi dañoo nakari deret hmm. en plus nga dem plage. gis nit yi fa nekk nga taxaw ne danga leen sensibiliser metti na mais tamit foog ñu jéem ko mais tamit li nga fay jëlee du la neex parce que am na nit ñu nakari deret am na nit tamit yoo xam ne dangay wax ak ñoom duñ la faale wala nga wax ak moom comme ni ko déjà waxee ñu saaga la mais loolu yëpp muñ mais am na nit yoo xam ne comme sama genre mënuñu muñ mais da ngay faaf faaf faaf euh, laaw biir rek waaw foog nga laaw biir parce que tamit am na nit ñoo xam ne comme sama genre bi du ñu jàpp dara mm. dañ leen saaga tey dóor leen tey xas leen wax leen lu nekk après dañuy dañuy xam mhm. man xam luñ may wax man de temps en temps dama ñàkk jom <laughs> mais ñàkk jom boobu la fekk nga di euh, sensibiliser rek moo tax ñu lay wax waaw parce que nit ki xam nga di nga ko wax dara mhm. du la faale du la lijjanti loo wax baax na mais moom liggéeyam di da koy def doo ko teree def liggéeyam mhm. looloo tax man ñu naan ma yow da nga ñàkk jom <laughs> ñàkk jom boobu nag ñu may wax daf may poussé nag ma gën a bëgg sama liggéey gën a def li ma war a def parce que duñ ma ko teree tamit ok moo nekk lu am solo yow tamit interpellé nañ la ci aku aku ndaw ñi ndax ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. ak ndaw yi ñu ngi ci bàyyi xel mais bon mun naa ne bàyyi ci xel à 100 pour cent. des na quoi tey EMAD ñëw. Mhm. formé ay relais fàttali leen. Mhm. les droits de l'enfant. voilà parce que boo gisee si ay activités yu muy def mu ngi leen <coughs> koy fàttali mm-hmm. parce que gis nañ ne instant bi maltraitance bi dafa bari mm-hmm. gis nañ ne tey xale bi li mu war a am ak dund ak fameem mm-hmm. wala nekk ak kenn koo xamante ne tey daf koy toppatoo ak yooyu noonu yëpp dafa doon loo xamante ne ay droit la yu xale bi war a dund amatu ko gis nañ ne jamono ji xale bi dafa am droit wu jàng droit à l'éducation dafa doon loo xamante ne ak ko xale la mhm. mun nañ ne xale yi tey jamono ji jàngatuñu jàngatuñu ñoo ngi nekk ci li leen neex mhm. jàngatuñu amatuñu suivi ñoo ngi génn ci mbedd yi di taxawaalu mhm. jàngatuñu tey ñu ngi commencé di am yeneen comportement ak ñi nga xamante ne jànguñu woon nekk ci koñ bi instant bi ñoom ñëpp ñoo yem xale yi jàpp nañ ne ñoo ngi si vacance ba jax tax na fi ñu toll ni lañ daan def dematuñ ko te aussi parents yi suivre leen comme ni mu waree voilà suivi bi dafa des suivi bi dafa des te aussi man ñan laay gën a bàyyi xel mooy ñi nga xamante ne mooy handicapés ah. te tey boo xoolee avec les droits de l' enfant dañoo ne l' enfant a le protégé en cas d' xale bi tey bu fi amee handicap dañ ko war a faj dañ ko war a protéger mhm. mu doon ak boo xamante ne àkkam la mhm. mais tey yow boo xoolee tey ci yenn si suñu hôpitaux yi mhm. mu ñëw nekk benn étage wala clinique yi ay escalier est ce que ñooñu sóoraale nañu les personnes handicapées tey ñoom ñi nga xamante ne tey bu ñu bëggee utiliser zel ñenn ñi amuñu ñaari loxo c'est difficile bopp dañ leen di jàppale yëkkati leen mhm. ka leen di jàppale est que du leen wàllu virus bi mhm. dafa doon ñoo xamante ne ñoo gën a exposé wu instant bi mhm. war nañ leen gën a gën a gën a gën a bàyyi xel mais aussi bàyyi xel xale yi parce que tey démb rek ñu ngi ciy waxtaan man ak sama benn euh, xarit boo xamante ne jeune ado la Lamine. ñu ngi waxtaan nan la ban stratégie la ñu war a mën a jël teg ko. pour dimbali tamit xale yi. parce que ñu ngi ci mbedd yi. ñenn ñi déjà démb. groupe boo xamante ne plus de quarante enfants dañoo ñëw ñu ne ñun dañuy xuloo suñu biir te gis ne yow ko ñi mag yi ngay dajale rarement nga ñuy woo ñu est ce que doo ñu jiboole ma dajale leen waxtaan boobu ñeneen di ñëw di bokk ba instant bi genre association laa leen defal démb bi ma leen woowee quelque seen biir ma leen gëj nañoo waxtaan nañu waxtaan ñu ne ma taa Aïcha kii léegi diw lay génnal kii kii lay génnal kon tu vois voilà yaa ngi gis des enfants ne entre treize quatorze ans onze ans ñu war a defar seen avenir. Mhm. ñu war a jéem a jàng ah. pour réussir. ñu ngi tàllale ñu ngi ñu ngi nekk ci ay. Mhm. entre copain copine la pourquoi. Mhm. parce que tey boo xoolee même au niveau di du banlieue. jide caare kër fi ma nekk dangay ngay dugg benn kër nga gis fa benn set ménage kër googu déjà xat na mhm. éducation bi est-ce que dina yem mhm. am na parent boo xamante ne doomam dafa mel nu ko neex mhm. mais kenn du laal kenn du wax beneen xale bi nekk ci kër gi dafay bëgg a ak moom di ko da ngay gis comportement yi dafay bari foofu nga yar fa sa doom yomb xale bi dafay obligé moom pour mu mun a frie nekk à l'aise dund benn loisir bi nga xamante ne it tey loolu akkam la dafay bëgg a génn si biti ñoom jàpp nañ ne xale bi tey pour mu am loisir mhm. dafa am droit wu jouer mhm. dafa war a am droit wu loisir yooyu noonu yëpp seen droit la mhm. mais ci biti lañ ko mun a amee te alors que dafa doon loo xamante ne mun nañ ko dund ci biir kër gi papa jeeg yaay ji nañ jéem a organiser ay jeux yoo xamante ne seen biir dinañu jox xale bi ay valeur am mais mu doon tamit jeu dinañ ko jox àkkam mais mu doon jeu boo xam ne daf koy jariñ mais mun nañ ne jamono ji tey ñoom ñoom dañoo exposé wu daal ok léegi ñu jóge fa tey euh, moom junj na ko léegi nee na plage yi ndax yéen itam prévoir ngeen wàcc ci plage yi ngir sensibiliser tamit euh, askan wi ci wàll yu ni mel. bon au niveau de Pikine wàccaguma côté boobu je pense parce que je vais dama def jotoon def quelques renseignements ñu ne ñu c'est interdit. Mhm. nit ñi demuñu fa ñi fay dem sax dañ leen jàpp. Mhm. moo tax jotuñu fa woon def gëstu pour wàcc fa. Mhm. mais ba fa amoon tamit dañuy dem. parce que nee naa la yombut. Mm foo ciy dem rek da ngay sóoraale que ni boo yeggee dinañ ma humilier. Mm-hmm. boo yeggee mun naa faa tase ku la nangul. Mm-hmm. mais n'empêche que tu pars avec l'engagement. Mm-hmm. tey kër ga ngay dugg ñu lay yuuxu di la gëdd mhm. nga xëyaat suba dellu si waat fa mhm. c'est parce que dafa am tey loo fa soxla kër googu tey boo leen protégé wul mhm. gis nga seen xalaat yooyu ngay xeex que ni kër gi naa ko bàyyi ñoo ñu mun nañoo dem influencer ñeneen du coup yow da ngay jàpp ne sa liggéey ngay wàcce que ni tëb naa kër gi damay jàll kër gee pour gaaw pare mais moment boobu yaa ngi gën a yaatal liggéey bi yaa ngi gën a yàggal sa bopp ci jour yi ci activité boo xamante ne boo ko waroon réussir d'ici un an mun nga dem ba deux ans ndax benn kër googu di génn di dem si ñeneen ñi di leen influencer donc dafa doon loo xam lu métti métti dañuy dem ak fépp fuñ ci mënti doon man récemment dem naa ba Kaolack mhm. c'était risqué de voyager mhm. mais dem naa appuyer ay jeunes filles yoo xamante ne tey lépp pour xeex Covid bi la mais damaa jël samay disponibilité dem appuyer leen mhm. parce que je me suis bu fekkee voyage risque la ubbi nañu bunt yi naa dem jàpp si rek voilà te tey euh, est-ce que tey le fait que ngeen di xeex coronavirus bi yéen a ngi ciy gis ñi nga xam ne ñu ngi taxaw seen wet di leen jàppale mais mbir mi Khadija laata loolu est-ce que yomb na yombul yombul yombul yombul parce que tey jàppale bi sax dafay des. parce que tey ci côté autorité yi. ci côté autorité yi jàppale bi dafay des ci beneen côté. Mhm. parce que dafa doon mbir moo xamante ne comme ñun ni ñu koy dundee rek dañuy def te yàlla rek tax. Mhm. tey defuñu pour tonton Cheikh defuñu pour tonton Baba wala ñu nekk plan naan damay def pour tata Adama bëgg lu ko neex wala benn ummi wala keneen ak keneen. Mhm. gaa ñoom ñoo sonn si ñun. ñoom ñoo yàgg si ñun. mais tey ñun dafa am loo xamante ne tey moom la ñuy demee. Hmm. mooy dañuy def ngir yàlla te yàlla rek tax boo xoolee ñun au niveau de nos espaces. Hmm. dañoo am problème suivi boobu. Hmm. dangay ngay suivre jeune bu ñëw nekk en état de grossesse nga convaincre ko dem ba seen kër. ànd ak benn bàjjen gox wala nijaay gox convaincre parents yi ba ñu accepter tenir xale boobu ci biir kër gi mhm. mais certains parents dañ la naan bu fi toogee kan mooy jël ay ordonnance am kan moo koy faj du moo ngi ni topp waa ji ba mu def mbiral ko ba pare bañ mhm. léegi imagine yow nga war a jël loolu en charge ci sa mhm. bopp ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam allo ah sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax allo allo waaw ñu ngi lay dégg tur bi ak ah, foo nuy woowee maa ngi tudd maam Thierno wootee Pikine. maam Thierno bisimilah ñu ngi lay déglu bu baax. waaw di bëgg a participer ci émission bi rek. yaa ngi ci biir maam Thierno. voilà di lu vraiment émission bi. Mhm. en plus di sargal ñaar seen ñaari invité yi nga xamante ne vraiment suñu fi jot a développé. Mhm. daanaka vraiment su may wax fekkoon ne Sénégal yëpp dañuy def yëpp dañuy mhm. donc heure bi changement am na bu yàgg. ok. parce que nag quoi a puisse dire. liggéey bi nga xamante ni moom lañ nekk di def. Mhm. c' un travail qui n' pas facile. Mhm. surtout ak période Covid bi ñu toll nga xamante ne mën naa ne presque li nga xamante ne mooy les liaisons sociales yi Sénégalais amoon entre ñoom. Mhm. te ki nga dëkkal sax wóolootuwoo ko. donc ñoom ñu bàyyi seen yëpp malgré ça malgré tous ces problèmes pour ñëw faire face. ak Covid bi. Mhm. di sensibiliser popu sensibiliser population yi te loolu lépp. Mhm. liñ koy def pour seen population moo tax ñu di ko def mais pas pour ñoom. Mhm. donc loolu c'est un travail boo xamante ni vraiment dañ koy saluer di leen si ñaanal aussi. vraiment liñ ci bëgg ñu am ko. mais man ko bi mu bëgg gën a bëgg a mooy que ni ces gens là. ces gens de personnes yi nga xamante ne vraiment dañu bàyyi seen lépp pour askan bi ils ont mérité d'être accompagnés mais aussi d'être amaana peut-être travail de sensibilisation lañ koy def am mhm. na ñu nekk seen ginnaaw bi ñu poussé mais mhm. suñ demee ci population bi ñu am fa lu leen métti wala ñu wax leen fa lu leen métti wala ñu def leen fa lu leen métti aussi tamit boobaa du mujj fenn parce que dañ naan travail volontaire la rek ñoom ñoo demaloon seen bopp sur le terrain donc ils ont besoin d' être protégés mais aussi ils ont besoin d' parce que dañuy bàyyi seen yeneen activité ci cause population bi mais aussi ci cause ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw. Mhm. di leen ñaax pour ñoom tamit ñu mun di wàcc sur le terrain. Mhm. te fépp fu ñu toog aussi ñooñu la ñuy waxtaanee organisation yooyu la ñuy waxtaanee programme yooyu la ñuy waxtaanee. Mhm. donc ñoom aussi ils ont besoin que programme yooyu tey ñu protéger leen ba nga xamante ne liggéey bi ñu def. dinañ ko mën a def ci lu mu gën a muccee ay mais aussi dans la sécurité. beneen bi mooy aussi c'est par Euh, Covid bi c'est vrai que dañuy wax Covid bi ak ak ses impacts mais mm-hmm. actuellement fu ñu nekk nii man côté bu nga xamante bëggoon naa aussi ñoom vraiment gën ci intervenir mooy ci côté paludisme bi mm-hmm. parce que Covid bi dafa tax ñu xaw ko passé mm-hmm. ñu xaw ko fàtte tuuti mais actuellement mi ngi nekk di ravager en plus mi ngi nekk di créer ay cas dans le cadre du Covid donc c'est des yoo xamante ñoom tamit en tant que acteur communautaire di wàcc la population jërëjëf maam Thierno ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax yëkkati na benn ponk bu am solo yow plateau nga dëkk te maire ba moom mooy Alioune Ndoye ndax euh, euh, gis nga euh, mu ñëw jege leen wala mu ñëw appuyer leen ngir dimbali leen ci li nga xam ne nag moo jëm ci coronavirus bi wala tey lan ngay xaar tey ci autorité bi nga xam ni moom moo nekk sa diwaan di xeex coronavirus bi ah, man de li ma xam mooy gisuma ko. Alioune Ndoye moom. waaw mhm. gisuma mu taxawuñu gisuma tamit mu épaulé ñu. Mhm. te lu ñu gënaloon mooy mu jug ànd ak ñun. Mhm. ñu xeex ko. parce que su jugoon ànd ak ñun tamit dinañu dooleel. mooy waaw mooy gën a yomb. parce que moom au moins dina am ñu ko déggal. mais moom bu Covid bi egg ñëwee ba léegi. gisuñu ko mu taxawuñu si lenn. du si lenn lenn lenn du si lu jëm. si su ñun. Mhm. wala lu dem si jeunes yi. Mhm. wala lu jëm si loo xam ne dina dem dina ñu wax loo xam ne ñun dina tax ñu gën a am. Mhm. kàttanu dem naan ñi ngi dugg si kër yi di sensibiliser. comme li may wax suñu maire. mooy tey bëgg neen torop. mu jug ànd ak ñun. jàppale ñu. épaulé ñu. di ñu wax tamit ay conseils yoo xam ne ñun dinañ jug loo xam ne dina tax loo xam ne. du ñu taay di jug di dem. pour sensibiliser nit yi. Eh, mais est-ce que tey yéen ak kuréel bi nga xam ni yéen a ko yéen ko yor foofu ca Dakar Plateau pare ngeen pour dem rencontrer ko ngeen ne ko monsieur le maire ñun lii lañ am lii lañ bëgg nga jàppale ñu ko ci xeexu coronavirus bi ndax pare ngeen pour dem seeti ko itam. Hmm, domaine boobu li ma si mën a wax mooy. su mhm. ah, suñu sañoon tey ñun. Mhm. ñu jóg. dem ba si moom. Mhm. waxtaan sak moom parce que loo gis rek waxtaan la. Mhm. mën nañ waxtaan ak moom mu ànd ak ñun comme si nu ñu mënee waxtaan ak moom tamit mu bañ. Mhm. mais tamit yaakaar naa ne suñu jugee. dem ba si moom waxtaan ak moom wax ko lu muy dégg wax ko tamit population bi daf ko soxla. surtout tamit suñu gox en plus mu nekk suñu maire. loolu tamit soxla neen tamit mu jug ànd ak ñun. ñu xeex Covid bi. kon donc pare ngeen pour dem ci mairie ba seeti Alioune Ndoye ci mu jàppale leen ci xeexu coronavirus. évidemment nous sommes prêts. ok. ok ci beneen wàll bi yéen itam Pikine autorité yi waa ji junj na ko nee na di ngeen dem dee fois ngeen sensibiliser du ngeen ci am lu leen neex ñi leen war a jàppale tey ndax autorité locale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca duwaan yi bu ngeen gisoon tey seen dimbal di dina tax ngeen gën a am courage ci wàll wi ni mel. waaw waaye juñ na ko te waa ji koy junj Mame Thierno Seye c'est le président des ados jeunes de Pikine je pense que maîtriser na bu baax li muy wax te aussi réalité la demande yi ngay gis ñu koy dugal ci biir mairie yeeg yëpp ci moom lay jaar mais mu doon loo xamante ne peut-être ça parce que jàppale bi ñu war a jàppale dëgg-dëgg dafa des nañ ko wax parce que tamit dañ ko soxla tey boo xoolee tey projet yi ñëw ay plan wala yeneen ak yeneen ay médicos yeneen ak yeneen di ñëw di jàppale jeunes yeeg yëpp si ñoom la waroon njëkkee parce que tamit seen askan lañ koy defar mais tey ko ci envoyé demande pour mu jàppale la ça des autorité yi dafa des man Khadija dama koy wax à chaque fois dafa des au niveau de Djiddah Thiaroye Kao am na loo xamante ne tey c'est que parfois je me dis que ni ci war a jaar duñ fa parce que tey benn relais wala benn bàjjen bi nga xamante ne moo ngi intervenir ci gox bi mhm. yàgg na depuis des années mhm. kooku tey boo ko newee kër gu nekk ñaata ménage moo fa nekk amaana mun na la koo génneel mhm. boo ko newee gox bi tey ñaata jeune fii ñoo fi nekk di jël grossesse mariage précoce yi bari nañ fi xale yaa ngi teel a bàyyi seen jàng di dem di nekk ci leneen tey loolu dafa am ñoo xamante ne ñoo ciy yëngu ñoo ci nekk tey Khadija moo ngi liggéey ci confidentialité boobu même bu ko waxul moo ngi gis ay ndaw ñoo xam ñu ngi leen di ci biir gox bi moo ngi suivre ay xale yoo xamante ne ñu ngi jël grossesse xëy na plan formé na ko ci mhm. jàngal na nan lay demee mais jàppale ba ca war dëgg-dëgg maire bi moo ko war a def mais nag na jaar ca war a jaar mhm. mu ñëw mu wax ko mhm. mais bu da ngay xool ka nga lëkkalool ka nga xamante ne moo lay jàppale ki nga xamante ne tey bu fekkee da ngay politique moom moo lay voter wala moom moo lay jàppale booy xaar ci kooku résultat amaana doo ko amee nu mu la neexee gis ngeen faut responsabiliser pousser les gens parfois pour avoir des bons résultats okay. mais su fekkee da xool li la arrangé nga def ko mhm. wala nga xool ne man kat lii nii damay wax ma diw demal xoolal ma lii rek nangam ak sàng amaana doo am résultat bi nga bëgg mhm. et c'est très important parfois ñoom aussi ñu wàcc ci biir terrain mhm. parce que nit tamit nit kese ngay mën a doon voilà ak autorité boo mënti am xamal ne jàppal ne un jour da ngay xëy mu denc yow tey ko doon ñëw di la pour nga jàppale ko wala nga jàppale askanam mun naa toog ëllëg ci sa place. Hmm. suñu borom rek moo leen fa teg te hmm. mun na leen faa jëlee donc ñoom nañ wàcc seen bopp. wàcc ci biir askan wi jàppale leen te xam ne seen salaire ba ñuy jot wala tey lépp luñ ci am mhm. mënti am jàppale askan bi moo tax mhm. waxuma defuñu mhm. ñoo ngi def ñu gis ne ñoo ngi def mais généraliser wuñ ko te aussi def bi yeggul fa mu war a yegg yëpp te loolu pour mu am niñ ko bëggee ñoom ñoom ñooy wàcc ci biir terrain bi parce que ñoom it dañoo am ñu leen di liggéeyal dañuy ñëw rek fournir leen ay résultat wax leen def nañu lii def nañu laa mais ñeneen ñu ngi leen di waxal ci ginnaaw ñeneen ñu ngi yàq seen palmarès ci ginnaaw lan moo ko indi ñoom wàcc ñu tey bu ñu wàccoon ci terrain bi lu xool. Mhm. dugg tey côté boobu noonu. da nga jàpp ni autorité yi nga nekk Pikine wàcc ñu ci terrain bi. dañ dafa man dafa des. ci li ma gis dafa des dafa mhm. des. parce que tey boo xoolee au kaaw jidee kii Medina Gunaas. Mhm. Medina waaw ñu jël. ñu jël kii si ligne bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, Abdou waaw ñu ngi ziar. ñu ngi ziar euh, Gaye. Mhm. alhamdulilah. Mhm. ate ah, bisimilah ci. Eh, yaa ngi ci biir. Mhm. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw waaw kooku Bemba. waaw. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. waaw ah, bisimilah. allo allo waaw yaa ngi ci biir bisimilah. ah jërëjëf jërëjëf mais dama bëggoon rek féliciter Khadija yooyu. Khadija au vraiment en les écoutant on éprouve de la fierté. Euh, parce que engagement bi dégagé wu ci seen wax. Mhm. ak fulla ak yar gi nga xamante ne moom lañ koy waxee. Mhm. vraiment képp kuy mag ku leen déglu di ci am fierté. Mhm. parce que réew mi toll na fa nga xamante ne. mag ñi tiit nañu jàq nañu. parce que li ñuy liggéey yëpp tool bi yéex na. xale yi ak ndaw ñi rek lañuy yaakaar pour ëllëg ñu suqali suñu réew. mais noonu noonu loolu nga xamante ne moom la ñu teg seen loxo. Mm-hmm. toujours manque de confiance moo koy lal parce que dañ naan xale yi matewuñ ko. Mm-hmm. seen loxo setul. Mm-hmm. wante ku déglu ñaari Khadija yii. di nga xam ne na ñu am yaakaar ci ndaw Sénégal. maa ngi leen di féliciter. di leen encourager. di leen wax ne fulla boobu nga xamante ne moom la ñu def. ba tollu fii. nañ ko yokk te duñ ko rëccu. dinañ ci am njëriñ pour ñoom. pour seen njaboot wante dinañu mën taxawu seen réew. Mhm. te fierté bi gën a rëy ci dënnu citoyen. Mhm. mooy nga mën a taxawu sa réew. Mhm. jouer sa partition. donc vraiment Khadija. merci beaucoup. drapeau bi nga xamante ne teg nañ ko seen loxo. yëkkati ngeen ko ci anam bu rafet. yokk leen laxasaayu. yokk leen góorgóorlu. suñu kéemtulaay kàttan EMAD ak plan international dinañ leen ko jàppale jàppale ko ndaw ñi. ñi nga xamante ne ñuy autorité locale yooyu ngeen wax nag. Mhm. waaw euh, bu leen xàddi. Mhm. xëy na yoon boobu ñu rëdd ngeen jaar ci ngir jàppale askan bi ñoom dañ ko gisagul. Mhm. mais ñoom it dañ leen war a sensibiliser. pour ñu dellu si parce que sensibilisation bi dafa dafa dafa matale. da ngay waxtaan ak sa askan. yee leen. ci sol leen seen masque. raxas leen seen loxo def leen nii def leen nii. Mm-hmm. mais autorités yi itam dañu leen di sensibiliser. ci ni nga xamante ne ñun citoyens yi noonu la ñu bëgg ñu jàppale ñu. Mm-hmm. en tout cas bind nañu leen bataaxal ñoom ñëpp. Mm-hmm. ci programme bi. te dinañ leen topp nag pour toogaax ñoom wax leen naka la ñu bëgg ñu jàppale ñu ko. jàppale ñu ko suñu ndaw yi nekk ci gox yi nekk ci gox goxaan yi. loolu incha allah dinañ ko dox. Euh, maire de la ville de Dakar recevoir nañu waxtaan nañu ak moom wax nañu naka lay taxawee. Mhm. ba ñu demee Jidda Caara yi kaw ànd nañu ak Khadija seeti maire bi maire bi mu recevoir bi mhm. ba ñëw na sax si sa émission boobu Bemba. bien sûr mhm. maire plateau tam bind nañ ko. tontoogul wante ñu ngi koy xaar. ak yeneen naatangoo maire yi nekk ci réew mi yëpp. parce que liggéey bi nag ñun ñëpp ñoo ci war jàpp. état ak démembrement am. ak société civile ONG ak association ak mag ñi ak ndaw ñi ak góor ñi ak jigéen ñi parce que yëfu réew mi la. Mhm. yëfu réew mi la te Sénégal nag dafa war trouver solution à cette question euh, du Covid à la question des enfants. Mhm. et de leur place dans notre société. Mhm. de leur protection. loolu nag nañ ci dox mais en tout cas. c'était tout simplement pour dire bravo à Khadija. nous sommes vraiment satisfaits et fiers de vous. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf kon mu nekkoon kàddu yu am solo mel na ni lii daf leen di gën a motiver bu doon da doon def dix da koy gën a yokk. ah bien sûr hmm. bien sûr ñu ngi koy nuyu bu baax tonton Abdou Khadre man pour ñoom je ne suñu engagement ñoom ñoo ko gën a renforcer mooy comme ci maam Thierno mi ma doon terminer léegi. Hmm. ay góor lañ. mais ni ñuy jàppalee jigéen ñi. Hmm. tey bu góor ñëpp defoon noonu. bu askan wi yëpp defoon noonu je me tey dara du metti parce que tey sànq maa ngi koy wax. Mhm. boo xoolee au niveau de l' espace mooy maam na moom woote. ñun dañuy jël suñuy ordonnance ne ko yaay président am jëndal mu jënd. te pourtant tey lépp engagement la motivation la parce que tey kooku mu ngi ñuy motiver tey ñun. bis bu ñu demee ci kenn mu diis ñu dara ñu xam ban yoon la ñuy jaar mhm. moom mooy dem wuti ay information ñëw woo wooma Khadija wala keneen yëg ngeen ne temps yi palu bi dafa yokk wala nangam dafa yokk donc renforcer leen ko seen ay biiri sensibilisation kon kooku mu ngi ñuy jàppale comme ni mu ko defee nii mhm. te loo xamante ne tey c'est des réalités yoo xam moom moo tegu kaw palu yaa ngi yokk ci biir mhm. parce que nit ñi tey nañ nee naa leen euh, emat déjà ñëw na mais nañ ci bàyyi xel dafa doon sensibilisation boo xamante ne du Covid kase. Covid ak leneen la buñ ko boolewul après day am beneen problème bu ñëwaat gën a diis Covid gën koo métti. Mhm. parce que tey imagine dafa doonoon loo xamante ne SRH wala mu doon leneen da ngay gis tey koo xamante ne dafay jël grossesse. Mhm. femme yi nga xam ne ñoo doon dem hôpital mais du ñu dem visite. ba Covid bi amee ba tey ñi si jël grossesse dañoo bari kaaw grossesse yi dañoo gën a yoox mais demuñu visite. Mm-hmm. defuñu échographie du benn analyse bu ñu def. Mm-hmm. tey ñooñu bu ñu waroon am avortement ci diggante bi. Mm-hmm. bu ñu demee hôpital day metti dafay metti dafa doon loo xamante ne tey même bu dul dee mort ci sur Covid. nañ xaar ay mort ci yeneen. donc matuwaay yi matuwaay yi nañ ko yokk comme mhm. tonton Abdou Khadir li mu wax mhm. du ñu mës a décourager au côté des kii autorités mhm. dinañ ci gën a bàyyi xel gën a yokk engagement bi woote Abdou Khadir bi dafa mel ni daf la gën a poussé nga nar a demaat ci wi waaw d'abord ñu ngi remercier tonton Abdou Khadre bu baax parce que mi ngi encouragé parce que tamit du ñu encouragé day baax si ñun parce que tamit nit sooy def dara <laughs> gisoo ko la encouragé danga naan ah damay bàyyi parce que maa ngi def loo xam ne kenn du ma si encouragé kenn du ma du kenn du ma naan li ngay def baax na dee ko waaw waaw góor li ngay def baax nag yooyu comme ñu ngi koy remercier bu baax a baax te dama wax tamit am na solo bu baax Euh, comme dugg si gox yi waxtaan ak ñoom. Mhm. moom def na lu baax parce que am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi toog seen kër. Mhm. di naan seen ataaya lekk seen gerte caaf. loolu lañ nekkee waaye comme que moom mu ngi jug. Mhm. ànd ak ñun di dugg si gox yi. franchement je te merci tonton. ok ñu ngi ci cappaandaw émission bi euh, daanaka waxtu bu ñu tërale woon jeex na. alors tey. bu fekkee am na message bi nga xam ne tey danga koy lancé ci askan wi ci jëm ci euh, jàngoroy coronavirus bi ba ci njaw ndaw ñi ni ngeen leen di sensibiliser askan wi man ñi tey kàddu gu mujj gi message bi lan la war a doon ci lan la war a porté wu. ah man de li may wax mooy parents yi surtout. Mhm. nañ tey seen ay doom parce que tamit xale yi dañoo lakkale dañoo soof. Mhm. da ngay gis xale bu nekk ci kër gi xeex. Mhm. xulloo wax. waxu jàmbur wala saaga mu ne ko demal demal fooyu demal si biti demal si mbedd bi loolu waruñu ko def te waruñu ko def feebar baa ngi si mbedd bi mieux ñu toog mhm. tee leen si kër yi suñuy xas ñu xas suñuy dóor ñu dóor mais bu ñu génn mhm. nañ toog parce que feebar bi tamit mi ngi si mbedd bi sooy dàkk xale yi naa leen dem leen si biti bu mhm. leen ñu sonal wala dem leen yi yow nga toog nekk sa jàmm mais xam nga soo génnee si biti sa doom lu ko fay fekk mën na génn xamoo nit ki mu laal ko mu indil ko feebar bi yow it mu dugg mu jox la ko mhm. wala comme ni mun na génn tamit mu am accident mhm. ñaanu ma ko yàlla mais lépp ngi si biir li ma leen di wax mooy nañ seen doom mhm. respecter distance yi jël suñu matuwaay donc tey gërëm gi ñan ngay gërëm emaat ak ñi nga xam ne ñoo la gunge tey ba li nga mën tey ñoom ñoo la ko mën a la ko dooleel tey ba ngay toog tey si rajo di sensibiliser askan wi kon mel na ni am na lu ñu def si yow tey waa d'abord maa ngi remercier waa EMAD bu baax en plus tamit kii tax tamit tey ma dugg fii nii je le remercie mm-hmm. il s'appelle euh, tonton Ibrahima Seye évidemment il est décédé aujourd'hui oh, loo xam ne tamit oh, dafa diis si man metti na mais tamit dama jël volonté mais ne mm-hmm. foog mu ñëw ma mm-hmm. wax mm-hmm. parce que tamit bu fekkoon mi ngi dund ba léegi dina ma ne damal moo tax tey moo gën a yokk tax ma ñëw fii dis na si man métti na parce que tey bu ma demee ba ñëw fii yàlla ak moom moo tax moo ma woo woo sama yaay ne ko sama doom Xadija dama ko soxla mhm. ma ñëw ma waxtaan ak man mu ne ma li ma lay gis fii nii ngay toog seen kër mhm. dama la bëgg dugal si benn euh, association ma waxtaan seen moom mu dugal ma mhm. moo ma dugal tey su ma yeggee fii yàlla ak moom moo tax maa ngi koy wax maa ngi sigil ndigaale sa famille ñoom Xadija sa sa sa femme d'abord mm maa ngi leen di mastawu bu baax a baax. Mhm. aussi maa ngi remercier sama papa tonton Cheikh Omar. Mhm. ndax depuis bi mu si duggee ba léegi moo ngi may épaulé. Mhm. mi ngi may jàppale mi ngi may yàdd mi ngi may wax mi ngi may jox ay conseils. mi ngi may woo mi ngi gëstu di xool si lu ma nekk franchement un grand merci à lui. jërëjëf ñu di la ko jaal bu baax itam alors Khadija ñu ngi ci euh, cappaandaw émission bi tey bu fekkee am na message bi nga xam ni war nga ko lancer mu jëm ci askan wi. tey ban message lay doon. voilà mooy li may wax déjà ñuy jaale xadijà parce que sànq wax naa ko nee naa ko liggéey bi lii da cee métti. parfois da ngay dund sax sa biir kër lu la métti mais t'es obligé d'y aller. Mhm. dem taxaw def semblant c'est difficile. du ñun à chaque fois bu ñuy dem di rencontrer askan wala ñuy ñëw di toog ci plateau yi di wax rek. Mhm. on est en bonne ah. da ngay feebar da ngay toog di wax mais da ngay souffrir da ngay feebar mais n'empêche que da ngay ñëw wax pour askan wi tey mhm. imagine sànq ba tey mu ngi fiy toog di wax. Mhm. mais imagine am na loo xamante ne mu ngi woon ci xolam loo xamante ne tey n'empêche que mu ngi bës. pour waxtaan ak askan bi. man je me dis que ni moom déjà ak fi mu tëjee rek tax na tey képp ku déglu émission bi wala ku ko dégluwul sax. di nga jàppale ñaari Khadija yi lépp luñ fi wax nga doon ay comme ñoom. jàllale message bi jàllale information bi mhm. voilà mu doonoon loo xamante ne tey c'est quelque chose à souligner mhm. ñu ko koy jaale bu baax a baax li may wax mooy le Covid 19 est toujours là mhm. donc soyons vigilants nañu xam ne feebar baa ngi fi nañu xam ne tey ONG yii ni yëpp di jóg di xeex di def que ce soit Emad que ce soit tonton Abdou Khader ak ñeneen ak ñeneen ñoo ngi jóg ñoo ngi jàpp mhm. mais si kaw askan bi bu ñu leen jàppalewul liggéey bi du yomb bu dee si ñun kase du ñu mës a découragé mhm. chaque jour dañuy continuer di dem mhm. mais nañ xam ne Covid mu ngi fi mais ci kaw xam ne Covid mu ngi fi nañ xam ne paludisme mu ngi fi moo nañ xam ne service SRAG yi ñu ngi fi nañ xam ne violence yaa ngi fi nañ xam ne ak ak yelleefu xale yaa ngi ngi fi. te mhm. respecté tuñ ko. donc je fais appel à tout le monde. Mhm. en disant que soyons vigilants. le mhm. Covid 19 est toujours là. respectons les gestes barrières. pour sauver des vies et nous leen ñoom ñaar ñëpp tey nekkoon na waxtaan wu am solo ndax tey ku dégg ndaw ñi tey ni ñu jëlee combat bi def ko seen yëfu bopp ngir sensibiliser askan wi ci jàngoro bi ni mel kon donc ñu mën a ñu mat a accompagner lañ ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci coronavirus bi itam dooleel leen euh, moom mooy dooleel askan wa ñu bokk ñu yokk leen jumtuwaay di gërëm itam euh, sunu partenaire bi nga xam ne nag moom moo di EMAD ñëwoon jàpp ci émission bi baax baax ci nga xam ni moom moo jëm ci coronavirus bi vraiment seen apport itam am na solo bu baax a baax askan wi ñu ci bari ñoom itam ñu ngi sentir li ni mel ci xeexu coronavirus beeg sensibilisation bi kon mbokk yi fii la ñuy yamandeek émission bi di leen jox dig daje ba dimanche incha allahu rabbi